inni nuxiitu yàlla ko ko yàgg na ko ko wax de waaye bi arqan wàccee ci la door a ko door a door a ko yëbbaane yëbaane waaye yàlla teel wax ne ko bul jaamu xerem yi an aabuda ne bu ma jaamu qul inni nuiitu an aabuda wala déet waaw mooy tollo moom qul inni umirtu an laa aabuda gis nga ko loolu maanaam bi benn la inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda wala déet dañ ma téré ma jaamu nga saxal ko wala nga ne inni umirtu dañ ma digal allah abud ne ma jaamu fofu nga dakk alladina yoy nga xamantene moy xerem ya ta doona min dunillahi lat hubal manat ila akhirah. qul la tabi ahwaakum li ngeen bëgg nak duma ko def qad idan buma len topé rek ma xamné ne wa ma ana min al muhtadina bokatuma ci ñi ko talibé li la wara dundu de ci jamono bi ñun nag amuñu xerem xubal laat manaat osda amuñu ko waaye xam nga li ñu am dollar dalasi dinar rial euro <coughs> wala déet ah suñu xerem moom la yonente bi waxoon ne salaat salaatu wassalaam nee na wa ushriwa fi qulubihimul ajl do alquran la mu ne bani israila dañ bëgg lan xerem boobu mooy mooy mooy mooy mooy moy mooy nag ba mu ne sama xeet na xam nga lan mooy seen ejulu dinaar wa dirham tëj bu ko xaalis loo wax te du ay milliards déglu wuñ la gaa yi lu ñu bugg xaalis rek xaalis rek la ba bokkuloo ci ah <laughs> yaa ko wax soxlooloo ci million i <laughs> Ndiol soxla ci milliards yi i <laughs> Fall yaa ngi dégg gars yi <laughs> soxla ci milliards yi soxla ci arkoir bi <laughs> yàlla war sag bi bëri joolaa bi maa soxla ci dalasi bi soxla bi yàlla na ko soxla yàlla ko war sag bi upp yàlla dafa ñu sutura yàlla dafa ñu sutura wala du noonu kon mu ne la seetal mm-hmm. an aabuda alladina tadoona qul la attabi ahwaakum di ma def lu ngeen bugg kat mm-hmm. dalaltu idan maanaam min al muuta kon ma xam ne réer naa de mm-hmm. kon moo tax bàyyi ci xel ci jamono bul topp ni ci li ñu bugg nit ñi réer rek la ñuy def tey jii ci jamono bu leen topp bul ànd ak ñoom o refananga wiineer ko yakkoori walaw ittaba al haqa ahwaahum la fasadati samawatu wal ard bul seet li neex nit ñi nga di koy def seeta li neex yàlla nga di koy def bu tombeeg li neex nit ñi nga def bu tombeewul nga dem fay wallahi lazim si ngay noppale ko foofu ngay doonee gor waaye boo ko defulee jaamu nit ñi ngay doon moo tax mu ne taida abdu dinaari wa dirhami da ngay doon jaamu nit ñi fexeel bi nga doon gor doon jaamu yàlla kese te buy doon jaamu yàlla moom mu goreel la qul wax leen ni inni man muhammad mhm. ala bayinatin min rabbi ci lu ma leer laa nekk lambatuwuma de mm-hmm. ñun nu ñu bàyyi ci xel mo mm-hmm. daara moom daara nitu daara moom moom lii mm-hmm. gis taalibe boo xamante ne wóoluwu li mu ne wóoluwu ko wóoluwu ko wóoluwu ko leneen la gën a wóolu alquraanam bi xam nga baax li ma la bii ay millions nekk ci poosam ñoom moom la gën a wóolu wala déet loolu nag gis nga doomu sëriñ yi ñoo koy gën a def sëriñ yi moom li ko li wër de wër sëriñ bi moom la sëriñ bi la sëriñ yi rek sëriñ yu baax yi bañ jeex sëriñ bi moom dafay wóolu yàlla wóolu alquraanam wóolu kurusam wóolu boromam wala bayyinatin min rabbi doom yi ñëw duñu wóolu yàlla xam nga lan lañu wóolu taaliba yi lañu wóolu am daral bu rëy daral nga koy tuddi parce que ñooñu nekkatuñu ay taaliba ñooñu ay nag lañ mu neex la mu nag ay nag lañ dëppal wala déet parce que nit ay xëy dem liggéey gontu dem jàngi nagay genti de gontu dem liggéey xëy dem liggéey fanaan di lekk di naan loolu du dara nga ne say taalibe di leen defal yàpp rek ñuy lekk rek di naan rek di xëy di liggéey rek di gont di liggéey rek loolu taalibe la nag la ku la ko waxul da nga xam ne boromam nag la aw ko na ko wax mari. sal bi maari yaamilu asfar kooku wax nag bu mu la naqare fexeel ba dindi ko ci sa bopp nekk ci daara di liggéey rek te doo jàng mbaam nga nag nga du daral la tudd waaw bari na ñoo xam dañu war maa ngi dem ca daara ja te daral la ñaam ci daral ba la ñuy dem Ya ngi xam baali ma la bul nangoo nekk nag de ñëbbu ci daral ba nit nga dem ja moo tax mu ne la kul mm-hmm. waxal ne inni man muhammad ala bayinati min rabbi dama wóolu li ma téye dama wóolu yàlla wala déet mm-hmm. xam nga ka jàng fàtte bi bismillahi rahmaani rahim bu wér caka jaan ba matoon daf ko gëm wala gëm daf ko ala bayinati min rabbi taaliba yu bëri du ñu gëm na de am na taaliba du ñu gëm lasaraat te dem lay wax ci lasaraat da lay wax naan ne gis nga ko fa wallahi wa billahi wa bitallahi yooyu lañ lay wax de waatal la ko ñetti waati ba mu jeex ne fa man shakka fi fa woo munafiq boo ci am si sakar yow nafiq bi parce que lii la xam-xam bu piir la alquran la kay wala de gëm ba ñu gëm lan ala bayyinati bi rabbi lambaatu wuma dama ko gëm fi ma nekk dama ko xam wala déet nekkuma ci erreur bari na taalibe yi bari nag nekkuñu ci nga ci luñ nekk ci erreur parce que xamuñu lu ñu téye xamuñu ko téewuñu dara ci dara sax téewuñu ci dara da ngay gis daara joo xamante ne da ngay dema dem bi ni li nekkatul daara xam nga lan la businessman la sëriñ ba commerçant bu mag la taalibe ay kii lañ ay ay ay nekkatuñu ay dongo taalibe de waaye ay dongo lañu wala de ñuy liggéey nañ ci àdduna rek du boobu boobu taxul jóg ba tamu ne ala bayyinati min rabbi mhm. wa kazabtum yéen a ngi fenloo nag bii lii ma téye mhm. waaye nag maa na leen war ne téewuma maa tastaajul li ngeen yàkkamte du ci sama loxo de mhm. alak leen léegi ngeen alaku léegi dem loolu nekkul ci sama loxo seetal ma li ñun sëriñ yi dañu wax loolu léegi sëriñu daara yi ñun talibé dañu wax loolu léegi ñun daara yi ñun sëriñ yi ci daara duñu wax loolu ñun talibé ci daara duñu wax loolu xam nga lan la wax la alak léegi da nga mën alak yonente bi moo ko indi ma tastaajiluna bihi li ngeen yàkkamte du ci sama loxo ñoom lan lañ yàkkamte andi laa leena ah ah in hada wala ko min fa amtir alena ndax ñoom loolu la ñu yàlla mu doon sama an fataran bokk xoolal ñaar saala saayilun bi dañ doon dem bay tëkku yonente bi yow Muhammad fekkee ne li ngay wax dëgg la alak ñu bokk yonente bi wax leen lu leer man awma lu ma leen alage kon mooy lu suba nga nekk sëriñ taalibi di wax ne sëriñ bi alak leen sëriñ bi alak nga ne wéy ke xana kiyaama den da nga yaa moom loo yam nga noonu nag di la fay romb di naan seen ceeb di naan seen limonade loo ci mag ɓe ngalak e ngalak ɓeege na yerale mona mune seetal lu mu la bëgg wax mooy ne bul dem di wax ne maa téye mbir mi sëriñ yi léegi nag taalibe yi léegi xam nga lan lañ tee ñoo yore mbir mi ne ay yàlla yu ndaw la du sa nga xalaki xalaki yaanu foog danga mën a alak ni sànku na kooku eh quoi yow Seydina Muhammad laa wax de bi nga xamante ne mooy xarita bi yàlla min al mukarrabina yàlla wax ko distance bu gàtt ne ko diggante asamaan jox na la ko loo wax mooy am maa indi maa tastaajiluuna la wax gay lu ngeen ma manti def awma ma ma leen lore mënuma leen a alak mënuma leen a yàq ma leen a def tus maa indi maa tastaajiluuna bihi wala de inil xukmu mbir mi ka cay atte illa lillah yàlla ko kalima seydna ali ba ñëw na de kalimatu xaqin urida bi al batil lii la gaa yi waxoon seydna ali dañuy xeexee seen raswatu ni ba affaire ba tàng gaa yi jël seen boobu ñu ngi waaj a gañe seydna ali boobu ñu ngi waaj a gañe amar ibnul as moo génne plan boobu noonu waaw génne kii bi rek kaamil rek ñu roof ci seen kii xeejo yi ci kaw taalaw ila allah ila naxtakima ila allah ñëw leen ñu attewo ila al ñu attewo ci al te naa leen ne lii pexe la continuer leen xeex buñ ko demoon duñ duñ fi yegg si tey moo tax dégg ndigal baax gaay mi ne xaay demuñ fen ñii nu dine xeex pour ñu fekk ci alquran ñu woo ñu ci alquran lu tax ñu di leen de te naa leen ne lii pexe la lii pexe la ñu dugg ci biir seet naa ne kon baax na ñu bañ bañ ba tëdd seet naa leen ne kon baax na dangeen di gis li ma li ma leen wax moom yàlla defoon na te boobu waaw dafay gis dara wax waaye ci loxo mooy li mu waxoon rek ci waaye raak yal na yal na ñu doon ay taalibe yu baax ci góor yal na ñu doon ko yal na buñ ko doon doonlu ba mu ko defee saan ñu fujjee dugg ci atte dugg ci atte dugg ci atte fan lañ mujjee kenn fal li naa seet naa li kenn fal naa mu wi gaa yi ni yow Seydina ko def yow da ñuy fond lu tax nga nangu àtte bi mu ne waxoon naa leen ko tëdd ñu ne yaa nangu buñ la koy da ngaa waroon a bañ mu ne bañ naa tëdd bañ naa tëdd yéen ngeen forcé mu ne yow nga forcé ah <coughs> amuloo droit àtte ñi yaa droit àtte yàlla moo war a àtte mu ne kalimatu xaqin rida bi xabaate moo wax baat bi kaddu bi dëgg la waaye fena tax ñu ko léeg-léeg mu am saa saa léeg-léeg mu waxee noonu léeg mu foog nga foog ne dafay wax dëgg waaye fekk laroonu wax ba boo ko xamalee nga ne eh wax na dëgg kay eh wax na dëgg waaye laroonu wax ba yéene ba baaxul yéene ba rafetul wala de moo tax inil xukuma alquran yonente bi ñëw wax ko déggal ko ne inil xukuma ki mën a atte illa lillah allahu akbar man muhammad manuma atte malayka yi tam manuma leen a atte loo manu wax jibril ifiidi ba ko halakee den manuma ko inil xukuma illa lillah yàlla dal moo mën a atte loo yaqusul xàq yàlla mooy ki nga xam ne mooy xeeñtu dëgg rek fu dëgg nekk rek mu xeeñtu ko yaqusu man na firi nettali waaye du fi am solo yaqusu mooy xeeñtu alxaq dëgg lay xeeñtu yàlla fu dëgg féete rek foofu lay xeeñtu yàlla du taxaw fu dëgg nekkul moo tax lu jar a bàyyi xel bu fekkee ne yaa ngi ci daara te dégguwuloo yàlla du ñëw yaqusul xàq yàlla dëgg lay dabi waaye du dab lan nit diw sama baay diw sangam mooy sama yaay diw sangam mooy sama maam du tax yàlla jox la yaqusul xaq wala déet afa najaalul muslimina kal mujrim maa lakum kayfa taxkum wala waxuloo yàlla nee na laa yastawi alladina yaalamun walladina laa yaalamun mën na ne kii def lu ba ak kii def lu mënuma leen a yemale kii xam ak kii xam mënuma leen a yemale moo tax mu ne yaqusul xaq lii ci daara boo fa demee moo fay moo fay moo fa nekk wala de moo tax doo wax ne diw sangam mooy sama maam diw sangam mooy sama baay diw sangam mooy sama yaay diw sangam moy sama sëriñ danga jàll loolu mënu laa jàllale yaqusul xaq yàlla dëgg lay topp ku la mënti jur jubalal tey def lu baax inna laa nadiya ajra man ahsana amalan wala de ku la mënti sëriña sëriñ ku ta nekk sa sëriñ laa wax de fexeel nga góorgóorlu walladina jahadu fiina la nahdiyannahum subulana waaye di sanga mooy sama sëriñ xëy amul morom <laughs> ñun ko ñu ñëppay sotti hee Seydina Muhammad moo fi gën a man Seydina moo fi gën a man waaye dafa ne ku deful mënumaa def ci moom dara fii ci teen bi ku indul pan mënuma laa rootal ku indi pan laa mën a rootal kon am sëriñ bu baax taxul nga sotti nga raw say morom de bay mm-hmm. bi xel bu baax li ma lay wax mm-hmm. nga am serigne bu baax bu melni ni ma am mu di lay yar di lay jàngal di lay teg ci yoon nga nek ci dal di def lula neex sa morom yi ñu nga ca serigne sëriñ ma alaaj ko man fuf mm-hmm. te gog mu ngay lu fuf di yewenal fuf di rafetal fuf ya nga nek fi ci lula neex ngeen daje elek mu ne la topal ci sama ganna sa serigne mo man sama serigne waaye man mala man yow wu léeg-léeg sa baay man baayu jàmbur doomam man la yow loolu du faal da ngay jeex taalibe bi beneen taalibe yi sëriñ ñoo man la yow kon gaafe ci sëriñ bala walla wala ca taalibe ba la wala de kon sëriñ dafa war a man waaye taalibe itam dafa war a nangu sëriñ dafa war a man il faut mu am xam-xam il faut mu am il faut mu leer pour man la yar man la jàngal la teg la ci kaw yoon wala déet waaye yow taalibe il faut nga am kaabiliya li ñuy tuddee kaabiliya wala déet ndax weñ dañuy togg waaye kenn di togg xeer yow bu fekkee ne taalibe bi méngoo nga ko bismillah moo tax mu ne yàqusul xaq yàlla moom dëgg rek lay togg xoolul bàyyu ki xoolul yaayu ki xoolul maamu ki xoolul seetu kii kenn la seetu ki jëf rek la xool ki jëf rek waaye jexel waxu wane na moom yàlla nag xayrul fasilin ñi atee moo ci man moom dafay atte pare te kenn du ko tudd wala déet dafay atte pare alaaji Mansour bu dajeeg yeneen morom ya mu dajewoon ca sifo dañuy door karamoy kenn du door karamoy ku ci nekk da ngay yëdd sa bopp ne maa deful li mu def wala déet ña ko fa fekkee mooy ñoom suñu paa yii nii ñoom Fabalaaji ñoom Kotuma xam nga ñoom fekkee nañ ci tuuti wala déet te du nekkul ne ñoom rek ay nettali da ngeen di déggee ci ñeneen la ñuy nettali boo ko déggee nga ne kon kii la mu am tey ji yelloo na ko de kon yàlla jox na ko te yàq turam waaye alaaj Mansour bu fa nekkoon ci caaxaan di def lu ko neex di def banditisme ah di nelaw guddi di caaxaan bëccëg di caaxaan guddi xeexe yàlla may ko li ñu ne he yàlla jubul wala ñu ne karamoy jubul walla déet karamoo jubul wala yéen ñooy yàlla jubul parce que jox na ko xamante ne yelloo waaye buy def noonu di def noonu di def noonu ba tey jii nii mu mel nii ku gi nga ne ah, ah kay war naa am lii parce que ba ma ko fekkee ca daara ba ma ko fekkee ca daara yàlla noonu la mel ba pare te buy pare kenn mënu ko xas kenn waru ko yënt fi nga xamee nañ dem ci nawet nga jeex dugub man jiwuma dugub nga saxle man saxlewuma damay dem xasi yàlla nooy def xas sa bopp xam ne yaa jiwul sa dugub nga ji ma ji mu sax mu sax sa bos sax nga béy sa bos man béyuma sama bos ma xëy aw ma dara yow nga xëy am sa tool ba mu fees damay dem xasi yàlla kan lay xas sama bopp parce que maa béyul xëy yàlla noonu lay àttee bu defee ba pare yow mënoo xas yàlla mënul ne parce que doo wax ne moom deful saxal na di ku ji rek mu saxal yaa sa yaa yaa jeexul wala déet ñoral na di ku rek mu ñoral yaa béyul di wala déet moo tax mu ne wax wa moom yàlla xayrul fasilin yàlla yàlla jàppale ñu kul wax leen ne mhm. law su ne indi mu ngi ci sama loxo maa tastaajilu na bii la ngeen yàkkamte xaay mhm. la ko deel am ba mhm. mbir mi jeex bu yàgg dañu wax dëgg rek tey bu nekkoon ne caabi asamaan ci sa loxo la dina am ñu dul tey ji <laughs> seen kaw laal ah wala de ñamere woon sa baay ñamere woon sa yaay ñëpp ngay rey te fekkewu loolee sax <laughs> wala ña reyoon say maam sax da nga dem feyeku ji da nga déggoon salmon moo sa mam da nga dem reyi sa sëddu salmon yi comme yàlla jox na la buntu asamaan nit a hmm. mel noonu bi tabiat yi dafa soxor li gën a soxor ci kaw suuf mooy nit Seydina Muhammad dakk ko ci boppa nit na ay hmm. bu ma yàlla joxoon hmm. maata saajilu na bi la ku dee la ko dana jeex dana jeex wala déet waaye nag ci biir loolu yëpp nag mooy am nag Seydina Muhammad moo ca gën a bëri yërmande wala déet parce que Seydina Nuuhin lu mu waxoon laa tadar alal ardi alagule ñoom ñëpp seydina Muusa rabbana atmis wasjud ala fala yumin hatta adabal alim wala waxu loolu seydina Muhammad mu ne la ixfir li qawmi fa innahum la yaalamun kon foofu ba dafa mel ni xaala la ko waxee bokk kul la wa indi bu fekkoon ne mu ci sama loxo ma saaj li ngeen yàkkamte mooy alaku léegi la ko dee lambro alak naa leen bu yàgg waaye dama hada rajul fi kimmati ruqi na Muhammad amul morom loo man waxal ni manuma ko loo man waxal ni man naa ko wala déet wala déet loolu la woykat ba wax ida lam tastati shay'an fa jaawidu ila ma tastati loo manul romb ko fi dem ci li nga man Muhammad dafa wax li mu man ak li mu manul wala déet ban sëriñ xanaa ah, sëriñ bi wa boo demee si Tuubaa noonu la boo demee ñu baax ñëpp noonu la ñu baax ñi ñëpp boo demee ñoom la waaye bu ma la koy wax pour lu mu wax an Seydina Muhammad ñëw yàlla di koy waxal di koy jàngal kul waxal ne law moo tax bu fekkoon ne yii alquran na Muhammad moo ko fente du wax yi wala de parce que yi ku ko wax Abu Jahl Abu Jahl ni mu yarade ko ku ko wax yi nu muy gën a def dafay gën a tar ci ko ki mënul dara xamul dara kon xaaral ma mbéj ko xaaral ma xeex ko xaaral ma saaga ko dara du ma ci fekk wala de waaye Seydina Muhammad nag man ti xëyul yàlla ko wax lo moo tax mu wax di ko yàlla wax kul waxal ne law bu fekkoon ne indi mu ngi ci sama loxo maa tastaajiluuna bi li ngeen yàqamte mooy alag leen la ko dee la kon alag naa leen bu yàgg bay nioo bay na ko sama diggante gi yéen rek rek rek rek kon bu waa alag naa leen bu yàgg wallahu waaye nag bi zalimin yàlla xam ñiy doo ko firee moo gën a xam yàlla xam ñuy tooñ muy xaar ba ere bi keroog ba mu leen di soxla mm-hmm. yàlla yàkkamtewul dara kon man bu fekkee may tooñ mm-hmm. yàlla mu ngi ñëw su fekkee ne yéenay tooñ yàlla mu ngi ñëw yàlla dina àtte mm-hmm. keroog danañ ma sa xam kan moo nekk ci dëgg bi ak kan moo nekkul ci dëgg bi wala de moo lay woon nag ne baritu min xawli wa min quwati ila xawlillahi wa quwati nit dafa war a génn ci lanam ci pexem ak man-manam mm. làqu ji ci pexu yàlla ak man-manu yàlla mm. boo wóoloo sa pexe ak sa man-man yàlla bàyyi la seetaan la te bu la yàlla seetaan rek nga torox mm. moo tax bàyyee ndi ko ci loxo yàlla laa hawla wala quwwata illa billah mboolem yonente nag ci la ñu jël Seydina Ibrahima lan la waxoon hasbuna allah wa ni'mal wakil Seydina Muhammad lan la ko yàlla wax fa in tawallaw fa qul hasbi allah mu'min lu mu waxoon wa fawwidu amri ila allah Seydina Ayuba lu wa anta arhamu rahimin seydina yunusa lu mu waxoon la ilaha illa anta subhana inni kuntu min azalimin yëpp ci benn mbaal mbalka bi lay tuur mooy lan mooy jëbbalu ci yàlla xam ne manuma te manuma xawuma te manuma kon bul wóonewu ci wetu yàlla ne xam nga te man nga xamuloo manuloo te la nangu lool wala de kon en tant que talib bàyyi ci xel booy léegi balaa ñu la wax ne diw sa nga manul dara nga ne ko ah manuma dara di waaye nga gis manuma dara di nga danaa la laal te danaa la dóor laal demal yow la ñuy door kañ te la laal fii dina la romb ak paje romb gis nga ko ak jéegam romb la gis nga ko ak limonaatam ngay jooy mais kii mooy ki ma bëggoon a alak ko alak ruux way nu alak yi ma rewele ma nga waa xana kii kay wala de moo tax da ngay bàyyi bul jéema ne man mën na wala gis nga ko xam na pajero ndaw alagu bu neex <laughs> alagu bu néew <laughs> seetaan ku alagu kañ torox rek du am jàmm yaram du am jàmm xol du am jàmm njaboot du am ja kooku lañ tuddee torox kooku mooy alaku alaku mooy alkande mooy loolu mooy ko am amul jàmmuy jëmmam amul jàmmuy xolam amul jàmm ci njabootam amul jàmm ci këram kooku mooy alkande wàlli ma la ah waaye ñu ne du dafa alaku te sa kër moom dara gënu ko neex say doom dara gënu leen a sotti ah yaa ngi lekk sa ceeb yaa ngi rafet alaku bu neex a ngoog kay <laughs> yàlla kañ doo alakee noonu duy jëfandikoo yooyu duy jëfandikoo ceebam ah lewul ah waaw lewul ah, waaw boo bokkul boo bokkul boo bokkul bokkul boo bokkul hakada yal na yàlla musal ci alal bu lewul hakada kon daal ci gàttal mooy wallahu yàlla aalamu bi zalimin wa indahu gis nga yàlla mu ngi ci loxom ma fàttiwul xay bi du sama loxo de bi yëpp waxalu gi ci àll ba de gis nga yi muy wax yëpp yonent bi la koy kul kul kul kul kul kul mu lay wax ne taalibe fii la war a roy ci yonent bi gis nga la ko dale wala tatrudi taalibe moo ko gis nga ko la ko ñëw kul inni nu xiitu taalibe moo ko ba léegi kul inni ala bayna talib kul la wa indi ma tastaño tal wa indahu ba léegi yi yëpp talib daf ko war a dund wa indahu mu ngi ci loxo yàlla ma mafatihul xayb la nga xamante moom mooy caabi xayb mm-hmm. dégg mu baax li ma wax waxul wa indahul xayb ñu bari dañ ciy juum mm-hmm. surtout ñi nga xam ne ñooy ñoom ñooy ñii borom sikki bi ne yàlla rek moo xam li nekk ci xayb wala waxuñ lool ñoom loolu lañu wax dégg lu baax li wax si nii dafa sew de dañ wax nag gis nga ilaw yaradu mu saadu ma taa rajul min samaratin akmaamiha wa ma taa min inda ma taa ila bi ilmihi ci benen aya ba ci suratu luqman mu jantel ba wala huwa jaamiu wa inna wa'da wala yaxurannakum billahi garuru inna laa inda ilmu saad wa yunazzilu lgayda wa ya'lamu ma fi l-arham ma tadri nafsu ma la takzibu gadan wa ma tadri nafsu bi ardin tamutu ilmu xabir wala de yooyu lañ tuddee mafatihul xayb waaw léegi nag tudd fa nga tok fi di gis wa ndakar wala ci la ko boole wala de wala sax nga ne mafatih la yàlla wax yàllaa ko mën a poosé ci bopp nit wala déet kon bu ko poosé ci nit nit kooku mën na xam xëy parce que wóor na ba wóor gars yi dañu xam li nekk ci biir te waxuma bu njëkk sax waaye léegi laa wax di dooy dem ci hôpital ñëw ñu ne la doom bi la la ñu ne doom bu góor bari na bari na di da ngay dem ci hôpital ñu defar la écho génne la génne la nekk bi góor la te juddoogul xamuñu ko ah léegi bu fekkee machine mën na loolu yow nga jàng alquran wala asr inna al insana la fi xusr nga jàkkaarloog mën nga xam ndax dafa ëmb bu góor wala bu jigéen wala de Abubakar xamu ko wayu waag Aïcha ne ko sa ñaari càmmeñ la ñu ak sa ñaari jigéen Aïcha daf ko jaaxal bu dee ñaari càmmeñ ñi maa ngi leen di gis wala de kii mooy kii mooy Abdurrahman kii mooy Muhammad mooy ñaari càmmeñ Muhammad ibnu Abi waa Abdurahman ibn Abi Bakri jigéen ñi nag kan la ci xam asma kon kan mooy keneen ki te boobu jabaram mu ngi ëmb mooy Aboubacry mu wasi mu doon jigéen kan moo Aboubacry ne ko sa sa jabar ji jigéen la ëmb loolu loolu loolu xaybu du xaybu mu wala de kon wa indahu la yàlla wax mafaatihu waxul wa indahul xaybu yàlla waxul loolu déglu mu baax li ma leen di wax wa indahu mafatihu la wax yàlla ne na ma am caabi bay ubbi xaybu moo tax mu ne wa allamnahu la ladunna ilman boo demee ci école xam-xamu xaybu wala la laduni doo ko fa amee école doo ko amee ci mécanicien fan la ñu amee ilmul laduni yi ci daara ji wala de ci daara lañ koy amee moo tax xeex foofu xeex leen ko wala eh, ñafe leen ko ba jotti da ngay jàng téere yi walbateku nag ilmu la ilmu ilmu la duni yi xam-xam xam xam-xam piir xam-xam piir bul sukkandiku nag la gars yi di wax nag naan saafara bi naan saafara bi naan saafara bi yooyu dañ koy de waaye li ci gën a am ta mooy ragalal yàlla ittaqu firasata al mumin la wax fa innahu yanduru bi nurillah gis nga sa xol bu sellee wallahi alazim sa xol bu sellee sa rafet sa sa non sa jëf sa jëf jub mooy ni ko alquran waxee rek ne amantu billahi wastaqim ne na nga jëm yàlla te jubal wa an law istaqaamu ala tariqati inna alladina qaalu rabbuna la suma staqaamu gis nga buy am amul lu lay nëbboo ci diggante asamaan ak suuf xanaa koy tuuru leen dem de comme ni ko gars di defee sëriñ bi mu di lay tuur lëndëm bàyyi jël léeg-léeg nga ñëw mu di lay laaj yeeyo dofanu nga bo ma bin hande mu jël la kalaate la lim lay laaj mo ko gën a xam kon bi maana elmu boobu fan lañ ko amee ci daara moo tax alquran indi ko fii ca fa muy siyaaqu fa muy waxee ca daara mu ne wa indoo mafatih mafatih yooyu noonu nag yàlla ko amee sëriñ bi di ko joxe ah ah de sëriñ du ko joxe de wala de xam nga lu koy joxe saragal yàlla saragal yàlla moo la koy mooy al istiqamatu baadal imaani billah sa ngëm yàlla bu wér a nga boole ko ak sellal mooy jubal moo ko wax di laa yazaalu abdi yataqarrabu ila bi nawafili hatta fa ida ahbabtuhu kuntu samahu maay doon noppam yàlla déggul ñuy wax fee ca Amérique da ngay toog fii di déglu ñu nekk màkk wa basarahu yàlla ne maay doon bëtam yàlla gisu ña nekk ca Australie ya ca Makka da ngay toog fi di gis ña nekk foofu wala de dellu woon Seydina Ousmane ñoo ànd na ba ñu dugg see gis nga ko ñëw toog Seydina Ousmane ne leen nii ñu ñëwaat toogaat ni mu dummayu la ñu ñëwaat ak wéy dummayu mu ne yéen yéen yéen yéen ruusu leen sax mën lay am kersa sax seen bët yi ngeen def ko bakkaar ba mu fees nga ñëw dugg ci tuutu yonente bi xalifatu rasulillahi nga ñëw jàkkaarloog moo ak seen bëti fees ak bàkkaar gars yi dañ tiit lan la ko anas wax a wahyun ba'da nubuwa ndax gannaaw Seydina Muhammad dafa am nabiyu maanaam Jibril moo lay parce que bu ñu ñëw ci yoon bi ñun ñaar rek la ñu dajeeg benn xale bu jigéen ba mu ñu joxee gannaaw rek ñu ngay soot seet affaire ya ma lool Seydina Ousmane ne ko laa bal firasatun sadiqa déedéet gis-gis la waaye du jibril mooy wax wala de loolu foo koy ame ci daara lañ koy amee Seydina Omar yéegul ci kaw mimbar bi lan la doon wax yaa saariya aljabal yaa saariya aljabal yàlla ni na may doon sa baat kundu samahu wa basarahu wa rijlahu wa yadahu wa kulla ajjaihi ajjai jasadihi kay Seydina Omar sallu Madina Sariyatu mu nga fee ca ya Sham Seydina Omar taxaw ci kaw minbar bi di wax moom Sariyatu nee na maa nga toll di dégg baatu Seydina Omar yaa Sariyal jabal moytul montagne bi am na ñu fi làqu parce que boobu nii yéeféeri ñoo leen dàqee fi dañ doon xëy yéeféeri a gañe ñuy làqu ci montagne fekk am na ñu làqu foofu mu ne ko yaa Sariyal jabal ñu gës diggante gaa yaa ngi ci gannaaw di leen di xaar mu ne bu lool loolu ko ñu sànq ñu keroog waaye ba mu ñu waxee baat boobu noonu ci lañ mujjee te saariya rek moo koy dégg yaa saariya mu ne fal jabal waaw li damay wax ne xanaa Seydina Omar bu fekke ne haut-parleur am baax na mooy téléphone am xanaa saariya itam téléphone baax na moo tax léeg-léeg nga gis taalibe boo xam ne dafay jàkkaarloog sëriñ bi mooy sëriñ li mu doon wax keroog rek semaine bee passé mooy taxaatu gis nga ko mu ne awliya yi luxatu taxaaturi bu dee gars yi luxatu taxaatu bi dañuy wax ba pare nga door a comprendre ci xalaat la ñuy waxante mm. mu ne mu dafa jàngale ba sonn te mënuñu yegg foofu mm. te wax na dégg opor la naka téléphone am baax na waaye def ñuy téléphoné karar karar ñun dañu tëx dégguñu ko mm. vibrance la yàlla da ngay ànd ak moom ba dee te doo xam dafay wax dafay wax yow lu ne yow làmmiñam rek nga mën a nga mën a dégg te pourtant fi mu waxee bari na moo tax ñu di wax naan boo amee soxla ci sëriñ bi sax ñëwal gis nga ko gis nga boo jàkkaarloog moom rek boo jàkkaarloog moom bu fekkee ne yow sa haut baana baax na boo waxee rek dina waaye itam bu fekkee ne Serigne Bay tam am na haut-parleur téléphone de waaye Serigne ñu caaxaan yi ñëw gis nga ko yaa wax ci suuf du la dégg dara parce que haut-parleur am baaxul wala de loolu lu ci jar bàyyi xel te lu wér la de mujarrab sahihun mujarrabun sahihun mujarrabun waaw te léegi bu fekkee ne gis nga ko ñemoo la wax Serigne bi soxla di nga ñëw bi yegg si rek commencé di mos tànk yi rek di wax sa soxla ñu di waxtaan ci biir xol bi wax yëpp gis nga ko na eh, ne leen waxal la li nga bëgg a wax yëpp wala de bëri na koo xamante ne dafay ñëw ba ci yéeg si du mën a wax yenn gis nga ko bés ñu ubbil ko buntu foofu ku wax ne ko kan ma ko ko wax kan ma ko nag man lii laa wax ak yow te aw ma aw ci buntu wala de li nga bëggoon a wax yëpp waxuloo ko waaye moom tontu na la ca te laajtewuloo ku ko wax ne ko yow taalibe bi lii moo ko yitteel ci ay ay ay ay sual mu tontu la ko yëpp loolu alaaka bu wéeree diggante taalibe ak sëriñam dafay am yàlla waxul ne wa indahul xaybu waxuloo indahu mafatihul la wax waaye am na ci jaamam yi laa yudul ala xaybi ahadan illa man irtada wala waxul lool am na ñoo xamante ni yàlla ubbi na caabi boobu looy dégg fatu alfatu rabbani Ansu nooy wax yow allahuma naka. moo tax taalibe di koy ñaan allahuma iftah alayna futuha al aarifina bi hikmatika wala déet allahuma iftah alayna futuha al aarifin caabi boobu nag moom la yàlla di ubbi ngay gis loo mat a gis ngay dégg loo mat a dégg ngay xam loo mat a xam. ku ko weddi yaa ca yeggul bal kazabu bi maa lam yuhiitu bihi ilman boo ca yeggule nga weddi ko comme ñu ñuy weddee ne yàlla kenn du ko gis dañ ko géntu am na ñu wax ne yàlla kenn yàlla kenn du ko gis ci bët kenn du ko gént loolu gis naa ko ci téere ku ko bind ma ko réer daal moo bëri réer ak kam bind ci téere ne yàlla kenn mënu ko gént nañ wax dëgg kooku fenul ne yàlla kenn mënu ko gént moom waxul sax kenn ko gis mu ne ken mënu ko gént wala waxul loolu waxu ko loolu mu daal di ànd ba ñu demee ba ca حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها mujj ko ko lijante hatta ida laqiya gulaman fa qatalahu wala waxul lool jidaaran yuridu an yanqadda fa aqamahu wala waxul lool kana taxtahuma kanzun lahuma loolu lan la elmu lan la loolu xam-xamu école ci daara lañ koy jote fexe leen na bi jot yal na yàlla yërëm bàyyi leen xel li ma lay wax ni bu ngeen ko jot li ñoom ñoo koy jot pour yéen kon ni gars yi di demee ba am ay licence am ay doctorat ci seen wàllu liggéey eh, ci seen wàllu njàng ci école ya noonu la taalibe war a demee ba yegg ci lan alfutuhaat dafa bari façon nag moo tax ñu jógee alfutuhaat léeg-léeg nga am fatun asgar léeg nga am fatun awsat léeg nga am fatun akbar moo tax ñuy ñaan al fatul akbar wala déet waaw fatul akbar ngay ñaan yàlla mu ubbi la akbar wala déet loolu mu ngi ci loolu beneen affaire la moo tax lu taalibe war a gém la gém ngeen ko wala gému leen ngeen ko wala gému leen loolu moom lu am la moom wallahi la azim lu am la xam-xam bu wér bu piir bu piir bu wér sax kenn mënu ko witt wala déet waaw waaye nag itam mooy li ma leen wax boo ca demee ba yëg itam doo jël sa téléphone rek ubbi nag yow laa wax dinga nga doon def ci biir néeg bi laa wax ah ba nga defati ko rek ah ah li nga defee noonu de <laughs> eh gis nga mu ngi def ci biir bi gis nga ko bu génn nan mel ni yow masoo ko gis la yow foofu la la yàlla di nawee hmm. Seydina Ibrahima la njëkk a daal ba muy door am fatu xam nga def hmm. ba gis kuy sàcc mu gis nga kii sàcc hmm. ala ko ala rek alak mu def gis koo xamante ne mu ngay naan sangara yàlla yaa ngi gis gaaw yàlla alak mu gis koo xam ne mu ngay njaalo mu ne ngi gis ki alak ko alak ko gaaw yàlla alak mu gis benn waay buy sàcc nag mu ne yàlla ko déet da nga jeexal sama gay gis rek maa la <laughs> mu ne bàyyi la ko gis mu ko royal ci man maa ngi gis te du tey romb yow den gis te romb ko ah noonu la mu ko waaw wala déet antu moo tax boo ca demee ba yëgg sax dee ngay mel ni koo xamante ne masu ci xam dara wala déet dee fay dem ku ñëw def njaaxum erreur ñëw jàkkaarloog yow gis mu mel ni masul def dara sa waa ji doo def nag alwaa mel ni fiyee tuus fee dara xanaa lu dul nag nga yar masalan wala nga am looy def façon yooyu nga xaw a ñàggal wala nga junj wala déet noonu lañ koy def waaye booy taaw di wax ne léegi te ñu jaamu la yow def la yàlla yàlla bi wala léegi tey nga sonn doo amati liggéey ta liggéey wala dé waaye loolu moom luy ñëw la lu yàlla di ubbi ci minal mu xoo kenn xamul ban façon la moo mm. mm. xamul noo koy firee gis nga ko kenn xamul faraax wala lan lay doon foofu léegi bu ko defee nag mm. waaw taxaatu ñëw wala taxaatu kon waa indahu ci gàttal ñu dem wa indahu mu nga ca loxo yàlla mhm. mafatihul xayb la nga xam ne mooy caabi xaybu kon bii déglu bu baax waxul xayb juum ka ñu ñi koy firi dañuy jum naan yàlla rek moo xam xaybu déedéet mafatihul xayb la yàlla yore waaye xaybu moom kum ko xasa ubbil yaa ngi ci biir am na yoo xamante ne dañ koy xam wala déet yoo xamante ne dañ koy xam xew nga xam ko waaye nag ni muy amee dafay am yoo xam ne daf réer mm-hmm. ci dëgg-dëgg yàlla mën na la may fo loolu noonu nga am yoo gis am yoo xam daf lay réer surtout sax lu jëm ci sa wàllu bopp daf lay réer waaw te mën nga gis yeneen mën nga gis waaye lu dem ci sa wàllu bopp daf lay réer far mi wala déet loolu dafay am wala déet bari na façon léeg mu ñëwee la ci gënt am na ñoo xam ci gënt lañ koy amee am na ñoo xamante ne danañ ko am ci xoole nii gis nga ko am na ñoo xamante ne gis nga ko ci beneen façon la leen di ñëwee bari na daal ay façon yoo xamante ne ci la koy kiyee waaye nag lu xam-xam bu wér la bu am la boo xamante ne lu ñuy dund la wala déet xam-xam saxiix ilmul saxiix kon wa indahu mafatihul xayb yàlla amee mafatihul xayb laa yaalamuha xamul caabi yooyu illa huwa ku dul moom yoo tey ji boo ko bëggee sa taalibe mënuloo ko parce que xamuloo fi ngay jël ba ubbi xamuloo ko yàlla moo ko xam kon tey ji boo ko bëggee sa taalibe xam nga li nga mën jox ko wirdu masala mu def ba génn ca wala nga jox ko saafara mu def ba génn ca wala wala de wala ixlaas wala istiqaama déggeen ni ca waaye li wér wér moom ku dul def istiqaama mënu ko am amul wér bu la ko mën a jox amul saafara bu la ko mën a jox même boo tax façon boobu noonu buñ la koy jox sax bu dee saafara la wala wirdu boo war a def masalan façon yooyu noonu gis nga ko waaw gis nga ko waaw boobu da koy faal ngeen ma fay <laughs> am su ma wax <laughs> waaye wajjo de tur bi tam nga dem <laughs> dafa am kayfiya buñ koy defee <laughs> dafa am dafa am boo ko dafa am lim boo koy wirdu eh yaa ngi yaa rabbal alamin ah eh? yàlla yàlla jàppale ah <laughs> waaye dem rek tey sa kurus rek gis nga ko yàlla ah, yaa taxfal wusin <laughs> xamuloo ñaata la di dafa war a am lim dafa war a am heure boo koy def dafa am heure boo koy kii loolu nga man ci sa taalibe nga oo léegi <laughs> boo ko joxee sa taalib mu dem defar yàlla ñëw ki ci raas léegi yaa ubbi wala yàlla ubbi yàlla moo ubbi wala de kon laa yàlla mooy laxwa yow li nga man mooy joxe caabi <laughs> waaye caabi bi nag xamuloo ko yàlla ko man mooy wirdu ba rek wala de façon yooyu waaye nag loolu coono la seedal njool loolu coono la defal istiqaama rek wallahi jëlal istiqaama boo jële istiqaama gis nga ko tegu ci kaw yoon iman ba dëgër ci yow léegi tey te itam sax doo jaamu yàlla sax pour loolu ñëw erreur la loolu shirku la sax bàyyi jaxel de li ma lay wax nii mm-hmm. même bu la joxee wirde ba sax nga war a liggéey sax mm-hmm. yéena ci jaamu yàlla nekk ci nag yi xanaa loolu feeñ mm-hmm. waaye doo toog mukk he yàlla fatu bi ñëw gaaw he ba may gis ñoom ñii bu ñuy sàcc ba may gis gars yi bu ñuy génn si ah boobu da doon shirku wala déet waaye da ngay def di ngay def ko ñoom ci jaamu yàlla sellal ko léegi nag yàlla buy ubbi mu ubbi wala de loolu lañ koy defee kon istiqaama bi daal moom laa la cay wax nga jàpp foofu qul amantu billahi suma taqim wa an law istaqaamu ala tariqat la asqaynaahum ma an ghadakan la yàlla wax xam-xam boobu lañ koy jëte wala du noonu moo tax mu ne laa yaalamu wa kenn xamul mafatih ya damir bi delluwul ci xaybu wala waxul laa yaalamu wa bu doon ne xaybu lay wax laa yaalamuhu lay wax wa inna mufaade laa yaalamuhu ñu ne kon yàlla rek moo xam xaybu mm. kon erreur la ñuy wax na yàlla rek am xam xaybu dañu juum rek xamul xayb mm. parce que xamle na ko mm. illa man irtada la wax kon seppi wala déet kon li yàlla xam te moom rek moo ko tee mooy mafaatihi kii bosam bi koy ubbi bokkul ak sa bos bi koy ubbi parce que yàlla ni mu bindee nit ñi bokkuñu loolu moom yàlla moom bi xam ne mooy xoolal baaraam yi adduna ba adduna jéem la ko dal ba ca aada amul kenn ko ku niroog sa morom bi gis nga yuur itam noonu la tego defe naa xam ngeen nu andew jaxal li nu mu tudd segg da gis mu am rëdd amul benn bu niroog sa morom seet ko jaxaar yi ci naka nu mu tudd segg yi ci adduna bi yëpp boo leen dajaloon benn nirool ak sa morom rëdd yooyu te da gis yëpp dafa def rëdd waaye benn nirool sa morom nga dem ci mbaam yooyu yu àll yi yooyu di am ren di itam xam nga am ren di rek amul benn bu niroog sa morom ñun nag doo ko seetlu da ngay gis nag ne kii mbam la mooy fas yi ca ximaaru wax si dafa am rëdd rëdd waaye rëdd yi bii ak bee bokkuñu bee ak bee bokkuñu bii ak yaayam bokkuñu bii ba ta adama bokkuñu moo tax na yàllay ubbee bii bokkul ak na muy ubbee bii ak na muy ubbee bii kon xam nga loolu benn nit mënu ko ba wala nit mënu ko yàlla moo xam xaybu ba mafaatihu yam yàllaa ko man waaye xaybu nag ñëpp a ko xam moo tax ba muy wax damir waxul ne laa yaalamuhu mooy xaybu illa huwa dafa ne laa yaalamuha ay al mafatih illa huwa waaye xaybu ñu ko am bari parce bu ubbee sa xam nga bu ubbee sa xam nga da ngay jàkkaarloo di gis fe wala de wax nañ ko gis nga ko da gis koo xamante ne ndeysaan macha allah li yàlla di doga dafay toog fii nii gis nga ko ni ko mag i doon waxe toog fii laa wax de deyam jullee baag ba ca suul baag yëpp dafa jàkkaarloog moom yëpp mu jàkkaarloog moom loolu du xay moo tax mu ne la laa yaalamuha ay almafatih damir bi seetlu bu baax illa huwa ku dul moom waxul laa yaalamuhu te mooy xaybu illa huwa wa yaalamu yàllaa xam mhm. maa fil barri la ca jéeri ba wal bahri ak la ca géej ba wa ma tafqutu du daanu min warakatin xobu garab illa lu dul yaalamuha xam na ko subhanallahi alazim xobu garab bi ban heure lay daanu gis nga ko fan lay daanu lan moo ko fay jëlee warsagoo ko yooyu yëpp yàlla pare na ci wala habatin amul benn pepp fii zulumatil ardi ci biir lëndëmu suuf mooy dugub bi nekk ci biir kii bi wala kiiwu ñax yi ne xam nga ñax yi ñax yi kii la ñax yi jiwu de ñax yi di sax ni jiwu la de nekkul suufu kese mooy sax si de jiwu la yooyu yëpp xabat la fi zulumatil ard wala ratbin amul bu tooy bi wala yaabitin wala bu wow bi illa lu dul fii kitaabin mubinin lépp yàlla ne na maa ngi ko teg ci lu leer amul dara lu ma ci nopp kon kum ca woon tuuti nga gis ca tuuti lum la ca wonul doo ko gis wala déet waaye nag danañ koy gis léeg-léeg mu woon la walla de mm. léeg-léeg mu woon la léeg-léeg mu woon la la damal defi lii damal defi lii damal def lii bul def le bul def le bul le wala de mm. façon boobu noonu mm. te boo ko toppee noonu rek jël irshadatam da nga fekk ca lam la wax kon am na lu ko ci yàlla wonoon boobu wala de moo tax mu ne la wala xabat amul benn pepp fii zulumaatil ard ci biir lëndëmu suuf wala rasbin wala bu tooy mooy bii sax mooy bi war a genn si bi wala bi mooy dugub bi gis nga ko gàncax bi ñax bi gàncax bi daal yooyu yëpp raf bu la xam ngeen baax li ma la wala yaabisi mooy bu wow bi mooy sëpp suuf bi xam nga boobu du sax wala boobu dina sax bi kon bu la waxee raf bi mooy bi nga xam ne na sax bi mooy bu ñax bi ak bu gàncax bi dugub bi ak ñax bi ak basaa bi ak yooyu noonu yooyu xabal la ci suuf wala de te xam nga yow boo sànnee sa dugub ci biir yoo xameetu la sa fi mu ne wala xamee da nga ko bu saxsee rek nga koy xam ne léegi yàlla moom mu ngi xam fenn benn bu nekk fan fan la nekkoon mm-hmm. wala de da ngay dem rek beesee gerte wala dugub rek nga jël la nga man am na lu fa def xam ne gisuloo ko waaye bu nawee jotee rek mu sax fi parce que yàlla fàtte na mu lay wax ne fàttewu wala de boobu nag la ñu tuddee raf raf bi mooy bii sax yaabis mooy bi nga xamante ne du sax bi mooy suuf te boo demee ba ci juróom-ñaari suuf xam nga pepp suuf la yooyu yëpp mu ne yàlla nee na xam naa ko kon ñaata pepp suuf sax moo am yàlla nee na xam naa ko wala xabbatin la wax ñaata pepp suuf ñaata pepp dugub ñaata pepp ñax ñaata pepp lépp looy sax la mu doon ñax ba mu doon peppam ba yàlla nee na man xam naa liy sax bi ak lu saxul yëpp loolu la na mooy rab bi mooy liy sax yaabisim mooy lu dul sax illaa lu du fi kitaabin mubiin loolu nag defe naa na jot yooyu yëpp bëgg ko xam ah waaka da léegi-léegi nag boo nekkee nag taalibe nag da ngay bëgg yii nag pour nga mën a xam yooyu di mën a gis waaye pourtant boo commencé di gis daf lay sona boo commencé di gis daf lay sona xam nga loolu voilà moo tax bu lay door a dal nii boo moytu da ngay sonn commencement bi da ngay dem ba miin miin ko romb romb la ko ba